sans l'aval du gouverneur actuel. Il n'est même pas au courant de la destruction de nos biens, alors que ce n'est pas normal. Mom Tchopé Binko Séré, il n'était pas au courant. Hmm. Parce que nous préparons pour les du Nous avons gomelé l'impôt et domaine de la Fibaï parce que nous avons une voie de euh, régularisation. Depuis des années, nous avons un avis favorable au urbanisme, nous avons un avis favorable au euh, cadastre, nous avons un avis favorable am na ñoo xam ne signé nañ bay ñu ba place am na ñoo xam ne am notification bay nous avons une place. Pourquoi Chaque mois, quelqu'un a maire 100 000 francs, 50 000, ni 75 000 francs. Nous avons une semaine, nous avons fait une semaine. Nous avons fait place à pour de plus de 7 000 francs. Nous avons fait des bagages, nous avons fait une francs. Combien de personnes 138 jeunes, nous avons fait une entreprise. Nous avons fait au chômage. Nous avons fait c'est nos politiciens et quelques personnes des services techniques de l'État. Nous euh, avons jël terrain def seen i plan séddoo ko seen biir jëlee ñu fi ñun nag nga xam ne ay chef d'entreprise ay lan ay nit ñoo xam ne bu lu ñu ay kër di luye ay mel noonu mu tegee fan injustice boobu la ñëw di ko xeexte ak di ko yëgal euh, askan yëpp di leen xamal ne wax dëgg yàlla tooñ dañu fa tooñ fa tooñ a mm-hmm. am na lu ñu metti trop trop trop trop mii wax ak yéen amoon naa neuf journalières yoo xam ne chaque jour laa leen doon fay neuf personnes ay pères de famille yore seeni kër ak yëpp amoon naa sept personnes yoo xamante ne dama leen doon fay chaque fin du mois ñu may liggéeyal ñun ancienne piste bi ñun ñii fi nekkoon ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp dañu yore woon entreprise mun nañ wax parce que ay doomu aadama lañ yoroon ñu ñuy liggéeyal ay xale yu am jom ñu ñuy liggéeyal saa yu xëyee ñëw fii daan suñu doole lu ñu am yóbbu suñuy njaboot ak bépp doomu aadama bu ci xaj waaw ñu xëy nag directeur DSCOS Saaburi Ndiaye ak Diagne Diagne Mamadou Gueye de DG domaine ñu ñëw fii ci une semaine ci une semaine ñu ñëw some ñu ne ñu lan ngeen di def fii benn kayit ngeen am bu 3 heures yi indil leen ñu ko descos 3 heures ñu yóbbul leen suñuy këyit ndax këyit yi ñu yoroon ñoo ñu ngi ñu ngi woon en voie de euh, ñu ngi woon en de bail ñun ñëpp ñu yóbbul leen ko waxuñu ñu dara une semaine yi ñu some jot ñu ñëw yëkkati suñuy bagage génnee ñu sibiti dàq ñu comme ay xaj te pourtant ñun ay ay citoyen sénégalais lañ doon servir suñu dëkk jore ay xale di leen liggéeyloo di leen fay di def lu neex yàlla fii ancienne piste bi ah xamuñu nag ñi fi yoroon ay dëkkuwaay xamuñu ko mais ñun li ñu xamoon li ñu doon def mooy di liggéey di jaamu yàlla kon nag ñu ngi ñaan yow Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye dañu am yaakaar si yéen moo tax ñu ñëw taxaw ci télé bii di wax di leen ñaan nag fii dañu fee jëlee ak doole lañ ñu fi jëlee vingt cinq ans lañ fi nekk di liggéey waaw di fay patente di fay ci mairie Wakaam bi ñu koy ñuy fay di fay patente bu fekkee nekkuñu si yoon Ablaye Wade bi mu fi nekkee mu mosuñu am benn problème Macky Sall bi mu fi nekkee ñëw na ba fii man mii la taxaw waxal ne ma lan ngeen bëgg fii ma ne ko ngeen lijjanti suñu kayit ñu moom fii mu ne amul benn problème am leen seen jox leen ma si jëlal mu woo kenn ne ko jëlal ma kii numéro téléphone ba tey jii amul suite ñu toog ba deux mois mois de novembre une semaine ñu yëkkatiñu jëlee ñu fi une semaine li ñu gën metti nak moy lolu dañ ñu génne comme ay ñuy génne nit yu baaxul sa locataire sax bu nekkon sa kër tay do xey ne ko da ngay génn locataire sax bu nekkon sa kër di nga koy jox ah loi moko wax 3 mois di nga ko ko somé bala muy génn sa kër ñun nak ñu fo xamné dañuy liggé yàqal ñu fi nak ay millions yu béré béré bëri ay millions yu béré béré ñu yàqal ñu ko fi waaye nak képp ku ko def bàyyi nañ la ak yalla waaye yow nak Bassirou Diomaye fay Ousmane Sonko am nañ confiance ci yeen que ni yéen Euh, lu dul dëgg lu dul yoon dong moo leen fi teg. nguur gu bees gii fi nekk nag am nañ ci jom yaakaar président Diomaye Faye am nañ ci yaakaar ndax dañ ñoo tooñ dañ ñoo tooñ Ousmane Sonko dañ ñoo tooñ wax dëgg yàlla te lii dañ cee war a jóg ndax ay sénégalais bon tey mënu ñoo xëy di liggéey samp seen i entreprise ñu xëy bëgg leen faa jële bëgg indi koo xam ne ci bureau dong la toog liggéeyul góor am amulul askan bi benn njariñ lu dul yàq dong lay liggéeyee ak jël alali askan bi moo solo ko ko jaay loolu dong lay liggéeyee ñu nekk fii ñu nekk nii

kenn ku ne am nga kayit boo xam ne sa tour moo ci nekk kenn ku ne am nga plan boo xam ne un géomètre agréé moom moo ko defar ñu déposé ko ak suñuy bien yi construction yi def ak lépp mais ba léegi amul suite